am maintenant question bi si Omar Sarr moom moo nekkoon pourquoi Omar Sarr moom mu dugg si gouvernement bi en 2020 euh, boobu ba léegi ba comme si il est pas ambitieux boo gis nañu coalition Benno Bokk Yaakaar am na ñoo xamante ne boo daaxooruñu si choix Amadou Ba la moo tax moom gis bon peut-être mu ngi je sais pas mu ngi fin de carrière politique pourquoi moom comme que musul présenté wee élection pour une fois mu génn demal boppam jéem a testé boppam pour nekk euh, comme que nekk na plus de vingt ans maire euh, là-bas de l'autre côté mu jéem a ba boppam pour président wala dafa wóolu boppam wala wala wala wala nu mu wala nu mu demee. ñu jeexal ah, ci benn simili rek. Omar Sarr s'il y a un politicien légitime. Hmm. légitime ci carrière personnelle ku légitime ci Sénégal c'est bien Omar Sarr. Hmm. Omar Sarr est maire à Dagana depuis 1996 c'est 96 ak léegi yàgg na. waaw Omar Sarr bërki damay wax ni. 26 ans yaakaar la nit ñi di am ci yow pour fal la. mais compétence moo lay téye ci sa position. Omar Sarr est maire depuis 26 ans. Omar Sarr est ministre du président Abdoulaye Wade pendant 12 ans. Omar Sarr est euh, ministre du président Macky Sall depuis 2020 d'une manière ininterrompue su fekkente ni légitimité la mais actuellement fi ñu toll dafa nekkul rek légitimité ndax aussi. ngor dafa am. mais s'il est ambitieux aussi. On, non, euh, il est ambitieux. Ah mais il ne peut pas comment dirais-je intégrer le gouvernement du président Macky Sall. mu jox ko confiance bu toll ni yëkkati un ministère jox ko ko. def ko confiance bu toll ni tey di ko déglu ci lu bari. mais am na ñoo xamante ne benn bokk yaakaar lañ nekkoon avant. même génn ñooñu ñooñu Aliou Ndiaye Mohamed Boun Abdallah ñooñu génn nañ demal seen bopp. ñooñu ci ko mën a attends attends attends Omar ba ngay xam Omar Sarr xamoo Boun ba ngay xam Omar Sarr xamuloo Aly Ngouille Ndiaye. loo ci xam. non xamul parce que je parle des autorités politiques ba ngay xam Omar Sarr en tant que maire xamuloo Aly Ngouille Ndiaye. ba ngay xam Omar Sarr comme ministre xamuloo Aly Ngouille Ndiaye xamuloo Boun Abdallah Dionne plus nag mu waroon euh, il faut il faut m'écouter il faut m'écouter non non non mais il faut voilà xamuloo leen donc xam nga dañuy wax ni alal wala ambition bu mu mëntil doon. ki muy toj boppam mooy ku ci yàggul mais Omar Sarr est ministre depuis douze ans. merci. donc loolu tey honneur am moo ëpp doole leneen lu mu mën ci doon il a eu la chance de servir le Sénégal de 2012 de 2000 à 2012 et de 2020 à 2023. merci beaucoup.